Assalamu alaikum, assalamu alaikum, fidèles auditeurs et auditrices de Sunuker FM, muy la première radio panafricaine d'émettre depuis Los Angeles. Le local à CAP Sénégal naataange un parti en construction ci le président Abdoulaye Fall Nous leen di diital émission actualité politique de la semaine nous avons fait chaque talate, bu 17h nous ñu Nous fascinons dans ci plateau deux invités. au patriotisme multidimensionnel ndaxte réew mi rek moo leen ñor muy kan muy Sidi nekk ci parti CAP Sénégal naataange mu ciy feggoo may sa Thiam moom itamit nekk ci CAP Sénégal naataange may am mbékkite bu mag di leen dalal ci plateau bi ñu fas yéene waxtaane thème bu am solo ci coowal Ousmane Sonko bi ci Sénégal euh, Pastef l'Assemblée nationale un tournant décisif dans l'affaire Sonko donc Sidi Fall may tourné ci yow di di ziar di jox sa di am bu euh, di yow ci plateau bi du kon ma la rek nga nuyu auditeur ak auditrice bu Sunuker FM. asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu auditeur ak auditrice suñu kër FM di leen ziyaara bu baax waaye di nuyu soxna Marème maa lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di am mbégte ak contentement ci invitation bi waaye di nuyu sama co-débatteur bi di sa Thiam di ko jox wàccuwaayam bu baax di ñaan yàlla rekk mu may ñu ba waxtaan wi ñu dugg ni yàlla nañ ci gis njëriñ mu jariñ waaye jariñ waa réew mi yépp ak diaspora bi ak le monde entier kon ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar soxna Mariam kaddu gango ngoog jërëjëf jërëjëf euh, Sidi Fall fay nañ la comme ni ñuy fayee buur xanaa rek euh, may tourner si sa nattaango di may sa euh, càmm may sa nuyu naa la di la jox sa wàccuwaay di la rek bisimila te di la bàyyi it tamit comme ni ko Sidi Fall defee nga nuyu auditeur ak auditrice sunu kër FM balaa ñuy tàmbali. asalaamaaleykum Cap Sénégal naataange maa ngi leen di nuyu di leen ziare. di jël nuyoo yi di ko toog teg ci loxo suñu président Abdoulaye Fall di ko ñaan mu wasaareel ma nuyoo yëpp ci képp kuy e, jigéen ak képp kuy góor ak bépp kilifa bu nekk ci groupe bi may nuyu auditrice ak auditeur yu sunu kër FM di nuyu Adja Marème bu baax a baax a baax ci émission bi di nuyu aussi sama co-débatteur monsieur Sidi Fall. di ñaan yàlla émission bi nga xam ne ñu ngi koy waaja di def yàlla na nekk euh, émission bu mucc ayib mu nekk njëriñ pour ñëpp ñu koy déglu incha allah rabbi maa ngi profité aussi nag di di nuyu di sargal suñu professeur bi fi jaar démb muy professeur Malick mu def fi waxtaan bu am solo ñu ngi koy def ñu ngi koy nuyu aussi bu baax a baax a baax. di ñaan yàlla vraiment émission bi yàlla na yàlla def xéwal def ci jàmm bu baax a baax a baax jërëjëf merci beaucoup Adja Marem. amin ya rabbi na monsieur Maysa Thiam bëgg-bëgg yi benn la yal na ko yàlla mottali macha allah ndaxte lim fi wax waxu Sénégal la waxu xew-xew jamono la ndaxte Sénégal lañu dëkk Sénégal moo ñu ñor kon nag lu ko ñongal rek ci la ñuy dox kenn mënul nag. yàlla rek mën te ñu gis ne du moment qu'ailleurs nit ñaa ngi wut voies et moyens pour xeex mbas mi ñawal seen koom-koomu réew suqali seen démocratie Sénégal mu ngi toll ci coowal scandale politique bu ñu muuree malaanu mërs bu teere ci accusation de viol jëmale ko ci doomu réew mi muy njiital Pastef di Ousmane Sonko te ñu gis ne chaque jour ay information diffusée de partout jëmale ko soit ci PV enquête yi soit ci audition témoin yi ak soulèvement populaire des partisans de Sonko may ëlbatiku rek euh, ci Sidi Fall di la jagleel sama première laaj ah Sidi Fall gis nañu mbir mi ba mu tàmbalee ba pare da tey xat-xatu taxaw na jaxasoo am na ku nekk a ngi wax bi mbir mi taxawee benn tey am na ay jéego yu ci nekk yuñ ci def mu jëmale ci côté yu bari may ëlbatiku euh, Sidi Fall di la laaj ban jàngat nga am ci mim situation situation bi nga xamante ne moo gàllan ci mbaggu Ousmane Sonko. Eh, jërëjëf eh, soxna Marème bi am solo damay rek quelqu'un disait au lieu d'aller dehors rentre en toi-même c'est au cœur de l'homme qu'habite la vérité et la vérité est une puissance devant laquelle tôt ou tard chacun doit s'incliner et le temps est meilleur allié vous voyez toute vérité finit toujours par se savoir Mais nak le toll bëgg xam fu mu soxna Marem dafa wax nga la solo Ousmane Sonko. dafa am problème ak benn jigéen ñoom ñaan ñëpp ñu ay sénégalais seen problème xewee fii ci Sénégal waaye boobu ba tey gis nañ ne coow yi bari wax ji bari waaye ñépp rek foog naa ne ku ciy wax ku ne rek dëgg rek nga bëgg mu feeñ te su dëgg feeñee it waay waay ku juum rek dañ la war a teg ci yoon parce que loolu mooy dëgg waaye comme ña fa nekkoon na ko fekke kii nee na def na ma xale bu jigéen bi nee na violé nañ ko Sonko nee na dara amu ci te ñu ne senegal dëkk yoon la su dee dëgg la dëkku yoon la nañu bàyyi yoon mu def liggéeyam waaye yoon it suy def liggéeyam na ko jaarale yoon loolu moo ci am solo waaye tey Sonko def na ko deful wax dëgg yàlla mook yàlla ak xale wu jigéen bi ñoo xam xale bu jigéen bi def nañ ko defuñu ko ñoom ñaar ñoo xam waaye daal li ma bëgg a wax mooy Sonko daal coow topp na ko wax dëgg yàlla comme nak, ni ma ko waxe sank rek lu leerul rek dafa yagul kon comme suñu kanam la nek ah xeyna na dana feñ waye d'ici là ñu taxir lu ba xam luy xew jërëjëf soxna Marème eh, jërëjëf eh, Sidi Fall ci sa yu am sagesse lol nak ndaxte maandu dafa bax ci lu gis fekke woo kon nak ñi xam rek ne nga ci la nga c'est au cœur de l'homme que se trouve la vérité C'est ci dëkku yoon lañu nekk nañu bàyyi yoon def liggéeyam waaye yoon yi tamit na fexe ba def na mu kon nag rek may euh, ci may may ma transition deuxième question kon nak monsieur cham am nak amul yegg na ci loxo yoon mi nga xamantene mom mom mom saytu ak xol kan mo ci am deug ak kan mo ci amul deug gis nañ ne entamé nañu procédure malay laaj ban jangat nga am ci nu yoon sur toute la ligne waaw Adja Marème euh, maa ngi lay remercier bu baax a baax ci question bi nga posé mu nekk question ba nga xamante ni am na solo trop boo ma laajee ban jàngat laa def ci mbir mi euh, mbiru Ousmane Sonko ak Aïda ak ak Adji comme dossier bi egg na ci wàllu yoon ak euh, naka la ci yoon na doxalee boobu ba léegi ak léegi dina nekk la nga xamante naa ci sawar tontu. ndax quoi qu'on puisse dire Sénégal euh, réewu yoon la yéen yoon lañ fi war a doxal ci kaw ba ci suuf waaye man jàngat bi ma ci def mooy que ni am na la nga xamante ni lënt na am na la nga xamante ni lëndëm na ci procédure bi bu mu commencé ba léegi ndaxte boo xoolee dossier bi bu mu nekkee au niveau de la gendarmerie waa gendarmerie xam nañ ni Ousmane Sonko c'est un député xam nañ ni Ousmane Sonko c'est un candidat ba nga il est arrivé troisième au niveau pendant les élections euh, présidentielles xam nañ ni kon Ousmane Sonko n'est pas n'importe qui au Sénégal Ce fait que le dossier est ci seen loxo ñoom ñu xam ne kii dafa immunité parlementaire war nañ ko mun a ci assemblée nationale ba ñu am gain de cause. pour ñu mun ko entendre mais boobu faay ba affaire bi situation bi dem nii ba ñun ñuy dem di lakk ay pneu wala di taal ay kii nekk na situation ba nga xam ne vraiment maa ngi koy déplorer te loolu fóot la ba nga xamante ni ñi waroon doxal yoon ñoo ko doxalul te ak euh, situation bi nu muy demee nii franchement ñu ngi xaar ci yoon mu def dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg taxawaayu kilifa def taxawaayu yoon ba nga xamante ni ñun ñëpp suñu xel dina xaw dal mais bu fekkee nu mu débuté la continuer dina nekk situation ba nga xamante ni dina xaw a eh, tey xel te dina xaw a jaxasoo ci wàll eh, yoon nu muy demee ëllëg si biir réew mi dina nekk tiitange te du nekk la nga xamante ni lu rafet la kon nag eh, ci tontu boobu daal loolu laa ci am la nga xamante ni daal gis naa ni affaire bi lënt na jaxasoo na te kenn gëstu dëggatul déggatul kenn ku dul la euh, parti Ousmane Sonko aji Sarr kenn dëggatu ko kenn dégg kenn xamu ci lu mu ne am na ay interrogation yoo xam ne mu ngi ci biir kon nag ñu ngi ñaan yoon daal mu def dëgg-dëgg yoon ba nga xamante ne dinañ dalal xelu ñun ñi képp ka nga xam ne implique nga ci ñu déglu la jaarale affaire bi ci yoon ba nga xamante ne la manifestation de la vérité va s'imposer

mais tamit li nga wax il y a des zones d'ombre dans la procédure moy buñu xamé né Sonko c'est un député il n'est pas n'importe qui amna procédure normale légale buñu ñu pour atteindre euh, Ousmane Sonko pour mu tirer ci mom ay information mais dafa mel que nag euh, yëf yi bi nit ñi addo yi tamit ñu xamante Sénégal réew la ngoo xamante ne nit yi tamit am nañu gis-gis yi tamit duñu nagro tamit dafa mel ni ils en ont tiré des enseignements parce que division des recherches yaakaar naa ne tourné na ci procureur de la république pour mën a entendre l'accusé lan moo war a euh, nekk dëgg-dëgg taxawaayu assemblée nationale ci mbir mi fi mu toll nii question boobu nag maa ngi koy laaj. yow may sa càam mi nga xamante ne yow yaan ma indi ci sa réponse kon nag may sa yow laa jagleel question boobu waa kay Adja Marème eh, taxawaay assemblée nationale mooy que ni mu yoonam ci la nga xamante ni moom lañ ko séntu buñ la nee par exemple assemblée nationale pencum ndaw réew eh, eh, réew mi la dossier bi bu fekkee jaar na ci assemblée nationale waa procureur de la république envoyé fa euh, demande de levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko nañ ko étudier jaarale ko dans les règles de l'art lépp la nga xamante ni war nañ koo saytu ñu saytu ko. bu fekkee ni am na ay la xamante ni lu jaarlu yoon ñu jëm koo jaarale yoon ba mu tegu ci yoon ba nga xamante ni ëllëg kenn du am la nga xamante war na koo wax te boo xoolee eh, d'après les informations nit ñi li ñuy wax nee nañu ils ont fait par exemple une plainte contre X et du moment que c'est une plainte contre X l'Assemblée nationale ne doit pas lever l'immunité parlementaire de, de, euh, du député Ousmane Sonko parce que aussi il faut que nous jàngat lan tax immunité parlementaire ñu créé ko ci nationale c'est pour protéger les députés dans l'exercice de ses fonctions parlementaires et aussi pour ñu permettre parlement bi mun a def organiser ay séances sans intimidation te nous ñu la situation bi commençons mu commencé nii di am na benn relance politique ba nga xamante ni ñun ñu ngi ko ciy sentir kon nag ñu ngi xaar ci assemblée nationale mu saytu mbir mi xool nu mu waree jaar jaare yoon bu fekkee que ni am na la nga xamante ni tegul ci yoon ñu jëm ko ci teg ci yoon ndaxte quoi qu'on puisse dire aussi euh, Sénégal waratul delluwaat ginnaaw parce que Sénégal dëkkum démocratie la dëkkum yoon la. dina nekk lu ñaaw trop trop mbir mi ñu politiser ko ba nga xamante ni day yàq image yu Sénégal à l'extérieur moo tax it euh, nañ ci taxaw taxaw yi bu nu mu gën a rafetee rek dina baax incha allah rabbi jërëjëf. jërëjëf euh, Meissa li nga wax wax dëgg yàlla rafet na te neex naa déglu ndaxte assemblée pinc ndaw réew mi la. ñu teg ko fa it aussi tamit pour mu mën a protéger le député dans l'exercice de ses fonctions kon lépp lu fa ñëw rek war nañ ko mën a càmbar teg ko lépp ci dëgg pour démocratie Sénégal mën a gën a ñaw liberté ku nekk mën a jouir de ses droits donc du coup jouir de sa liberté kon nag euh, euh, damay ëlbatiku rek nga assemblée biñ ci ñëwee it tamit conférence des présidents demande bi tàbbi ci loxo euh, président assemblée mu saytu ko la ak euh, conférence des présidents ñu la commission des lois réuniru ci bir commission des lois bobu ñom ñu wat taxawal commission ad hoc mu comporté mu mu am ci onze députés mais man li ma ci xaw a jaaxal rek te may ëlbati ko di ko laaj euh, euh, Sidi Fall constitu constitution boobu composition commission boobu bu ak dot bi nga xamante ne moom la ñu dénk pour ñu saytu euh, mbir mii ñu teg ci accusation yi ñu teg ci ndoddu président bu ko mënee wax Ousmane Sonko. te ñoom ñi tamit ci seen kanam la war a mën a taxaw addu ndax sa xel dal na ci nii ñu mu tëddee juróom-ñetti député yoo xamante ne benn bokk yaakaar lañ nekk ñaari nekk PDS mën nañu wax opposition benn bi nekk non non inscrit te non inscrit bi yi tamit xawoon na indi coow lu ndaw ndaxte fañ ko doon tibbee yi tamit kooku dafa ne moom ak kii président Macky Sall dañu mel ne mburookum soow gaa ñi nag it tamit xawoon cee taxaw ba ñu yëkkati ko teg ca keneen kon boo ko xoolee balance bi dafa mel ne majorité présidentielle moo fi nekk ci kaw opposition euh, minoritaire yow ban jàngat nga ci am ndax xel mën na fa dal wala xel yi tamit nañu jël rek cër ba assemblée moom ñu delloo ko ko toog seetaan taaxirlu lan moo fay juddoo. waaw jërëjëf soxna Marème euh, question bi am na solo te sama wax bu njëkk nee yoon dafay baax mu jaarale ko yoon waaye gis nga soxna Marème <laughs> pour celui qui la cherche honnêtement la vérité n'est pas tellement difficile à trouver dëgg bi ak yomb feeñ si fii au Sénégal ak ni ñu xarañee quand les faits sont exposés dans la clarté de l'honnêteté la vérité n'est plus un souci les paroles de vérité sont limpides et sans vernis je vous dama lay delloo si ginnaaw tuuti rek pour wax la ne man lu sax sama xel dalul dafa amoon benn maire de Dakar en même temps député loolu démb la mu tudd Khalifa Sall procureur génn def conférence de presse woo ko te waru ko woon woo li Sonko wax ñu def ko li Sonko exigé moom loolu lañ ko waroon defal mais lu xew dafa dem ñu téye ko immunité parlementaire bu Khalifa Sall la ñu ko levé si prison bi xam nga loolu dafa ñaaw si réew mu ñu ne démocratie moo fay dox soxna Marème sama xel dalut te man je parle en âme et conscience di la wax ne gis nga dossier bi soxna Marème lu muy rëy rëy kenn rek moo ko yor kenn rek moo koy doxal kenn rek mooy wax ne def leen mu def teg ko ci suuf ñu teg ko ci suuf parce que ñun ñoo bokk Sénégal li fiy xew ñun ñëpp xam nañ ko gis nañ ko dund nañ ko léegi nag olof da doon wax ne ku ndëbin rey sa maam soo gisee lu mu da ngay daw mais dafa mel ne Ousmane Sonko dafa ne ku ndëbin rey sa morom soo gisee lu ñuul da ngay taxaw affronter ko nga comment dirais nga vencé wul sa maam ñaar ndax yeneen maam yi fi des kon dund continuellement dafa mel ne moom foofu la taxawe te maam jooju mooy wax mooy le Sénégal ndax lii su fekkee gañe am na si Sénégal moo siy gañe waaye su su perte amee Sénégal yëpp ñoo siy perte te fi mu jëm baaxul soxna ma rem te soxna ma rem am na procès verbal yi gendarmerie jël na ko jébbal na ko procureur procureur def na ci lu muy def yóbbu na ko assemblée nationale gis nga que la wax la su les faits là sont avérés kon kenn waxatu ko sama ko débatteur wax na procureur nee na plainte contre x waa xanaa lu gënoon yomb accusé de viol le dossier est vide dara amu fi oui, la vie continue te gis nga damay wax ne ndaw réew mi mooy les députés gis nga ku ñu yónni te kilo la yónni yaa ngi ko bàyyi fa nga jóge soo demee da nga koy fekk fa nga jëm te durant tout le trajet bi ngay def def ci ànd ak yow mu yàlla suñu borom te gis nga kooku yonent boobu loo ci def naka sudul noonu foog na yow yaa ci ne newoo ci bés rek ngay xaar te Sénégal suñu député yi suñu homme politique yi dañu war a ragal yàlla lépp lu ñu war a def dañ ko war a teg ci dëgg waaye ñun ñëpp xam nañ ne tey Sénégal su basculer rek ñàkk dëgg moo ko basculer seetal tey fii li am fii ay vidéo yu yu doy waar yu kenn bëggul a gis di jël homme de loi di ko def naka suusul noonu kenn bëgg ko kenn bëggu ko si réewam yàlla bu mu amati mais loolu yëpp nag su amee am na lu tax kon man ma gis ne sanction su waree am soxna Marème ki ñu war a sanctionné mooy ki def convocation boobu convoqué un député bi nga xam ne dafa am immunité parlementaire su sanction waree am ki ñu war a sanctionné mooy su fekkee kooku def convocation dañ ko jox ordre ki ko jox ordre dañ ko war a sanctionné foofu la ñu war a yem point mais leneen loo fi buggee indi rek madame je vous Sénégal du gagné te ci kanam la nekk nekkul ci ginnaaw jërëjëf. jërëjëf Sidi kon ne sanction yi dañ koy def à la muy jëm ci kaw di wàcc parce que li ci laxasu bari na. le dossier suit son cours li ci nit ñi doon njort muy forme aussi tamit demande réquisitoire introductrice bi plainte contre x bi dama yaakaar su fekkoon ne wax am nañ ci preuve bu contre x kon dañ nommément brigade division de recherche def na liggéeyam lan la jébbal procureur procureur lan la jébbal waa assemblée ba ñuy laajte contenu ñu wax contenu ba ñu egg si ne gaa ñi nee nañ duñ ko duñ ko signé parce que contre x la may sa wax nga ko wax nga ko

parce que tey jii mën na nit jóg jiiñ la kum viol te fekk ne laalewul taqewul te nag viol nekk nag un crime kon nag ma lay laaj Sidi Fall ca dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ak ay député nan la ñu war a mën a taxawee ba ñu ne ñoom ñooy tournant décisif bi actuellement ñoom ñoo ko mën a seddal mu sedd ñoom it am nañ ci wàll ñoom ñoo ko mën a tàngal mu tàng jël ci seen loxo teg ci ci dëgg wala ñàkk teg ko ci dëgg parce que boo ko xoolee fond bi ak forme bi yépp ça laisse à désirer te Sidi Fall ñu gis ne ñii bañ nañu signé bu ñu bañee signé xëy na naam am na yoon boo xamante ne biir assemblée dinañ trouver solution ba situation bi décanté wu normalement bu ñuy bi ñuy signé ñee taxaw yoon ci biir assemblée lan la fa war a mën a àttee. jërëjëf Marème question bi amatina solo ni assemblée war a taxawee soxna madame, député yi. dañu war a xool seen diggante ak seen borom si bii ak yi nekk seen kanam yépp ndax gis nga yaa fi nekk yàggul moo fi nekkoon moo fiy sax gis nga lu juge ñun balaa ñuy judd ay juge amoon na fi ba tey ay juge a ngi fi te dañuy dem bàyyi fi ay juge mais jusqu'à présent dangay judd dégg la noonu di juge fa Kéba mbay lu tax lu jara bàyyi xel la parce que àdduna yàggut mais malheureusement suñu député yi duñ taxawee noonu soxna Marème xam nga luy xew su fekkee ne jàmm delsi na ba ñu bañ a voté lii rek dañu jàpp ne ordre bi si kaw la jóge kenn ka ma waxoon mooy moo ñoom ay machine lañu ki ki yor direction bi moo leen di wax def leen ñu def bàyyi leen ñu def ordre foofu nag lay jóge ne leen bàyyi leen ñu bàyyi te bu loolu passé gis nga ñun dañu war a defaraat lu bari suñu réew bi soxna Marème lu bare bare bare bare bare gis nga euh, Senghor suñu président Senghor lu mu doon xarañ xarañ xarañ sëñ Fallou daf ko mos a jox leçon ba nga xam ne moom appliqué wu ko appliqué wu ko te su ko appliqué woon rek tey duñu si fii parce que boo président mu ñëw nga ne ko toogal mu toog nga ne ko kii laa bëgg sama taalibe bii laa bëgg nga yóbbu na ko assemblée mu ne la mais lu mu fay liggéey nga ne ko waxal mu wax nga ne waa ji tàccul mu tàccu nga ne ko tàccu waatal mu tàccu nga ne ko mën naa dem assemblée gis nga un bon ne donne pas de leçons il donne l'exemple mais malheureusement Senghor loolu da ko rëcc waaye mu jóge fi président Abdou Diouf ñëw maam Abdou Aziz Sy la sëñ Fallou jàngaloon moom mu ñëw teg ci baaraamam wax ko mu leer pencum ndaw réew mi nii lañu war a taxawee nii ngeen war a mel xalaat leen ëllëg ak yàlla wax wax wax. leçon boobu jàllut tey nag fii lañu egsi mais fu mu toll nii la woon nekkatul waay waay nit ki dafa war a gëm boppam waaye dafa war a gëm yàlla te xam ne yàllaa ko sàkk nit sàkku ko comme comme àdduna jaru ko soxna Marème soo bëggee dégg dëgg ci li ma gëm man Sidi Fall assemblée nationale nu mu war a taxawee si dossier bii du ni taxawee parce que dañuy déglu ñu wax leen ñu def te duñu xool avenir Sénégal wala déedéet la preuve ñun suñuy député dañuy taxaw ci hémicycle bi di wax ne ñun député président de la république lañu amna ci régime bi bu Macky Sall amna ci régime bu président Abdoulaye Wade amoon na si régime bu Abdou président Abdou Diouf ñun ay député président de la République dañ wa lolu haute trahison la parce que ndaw réew mi nga fa wara togal li ñor Sénégal nga fa wara togal gis nga suñu delu ginnaw yépp nak li rek ko yobé ko yóbbee jërëjëf. jërëjëf euh, Sidi Fall so gisé mo bamtu wat question bobu mu ñëwaat parce que dañu gis ne. député yi nga xamante ne ci côté majorité lañ dañoo commencé di jubiler di crier victoire kon ñooñu suñu ne dañuy doxal yoon dina xaw dina xaw a teel xel yi kon nag nee nga un bon éducateur ne donne pas de leçon mais il donne l'exemple ñun jàngale yi ñu ne ñun jàngalekat yi ñu naan la pédagogie par l'exemple kon li ngay wuyoo yàlla na fekk ne naam

ma lay laaj euh, monsieur Thiam est-ce que njort nga ci dossier bi nii muy doxee est-ce que mën nañu xaar comme que tout est possible dans ce pays il n'attend que des directives est-ce que njort nga ni mandat de dépôt mën na cee génn parce que dañoo fële fu fort criminaliser criminaliser le viol wala est-ce que xalaat nga ne dinañu génn ci délit yóbbu ko tribunal correctionnel kon bon sort exactement li ñu mën a njort ne réservé nañ ko Sonko. waaw soxna euh, question bi vraiment c'est une question très pertinente macha allah euh, si sa question bi on voit vraiment l'enseignante qui parle quoi et ça fait plaisir bon comme dañu gis li ñu gis affaire bi nu muy franchement moi j'ai dit que ni l'Assemblée nationale doit être souveraine te loolu lay Sénégalais yëpp di xaar ci Assemblée nationale bi mais boo xoolee ak situation bi nu muy jusqu'à présent Assemblée nationale ñoom waxuñu lan le procureur di toppee x boobu kenn xamul x boobu dañ koy toppee pour viol kenn xamul x boobu dañ koy toppee pour insurrection eh, kii euh, euh, insurrection kenn xamul luñ koy toppee te normalement war nañ xam yan fee la ñuy toppee x boobu pour bu ñuy levee man bu ñuy lever mandat mandat mandat kii am mandat immunité parlementaire am d'autant plus que sax amuñu sax droit pour lever immunité parlementaire am mais au moins lan lañ ko collé lan lañu collé x bobu les faits war nañ xam yan faits ya ou bien yan accusation lañ ci collé pour ñu xamné buñ koy juger ëllëg buñu lever immunité parlementaire ñu xamné ne nañ ko ci lu leer mais jusqu'à présent kenn xamul sëgam viol lañ koy topé ou bien insurrection lañ koy topé té lolu war na nek ay mbir yu leer nañ ba nga xamante ni kenn du ci am jiixi jax mais bo né x kenn xamul x bi kan te aussi poursuivi yi nga koy poursuivre kenn xamul lan la dafa mel da jël pañe nga jox ko benn mu dem marché lu mu na def ci bi te assemblée nationale taxawaay bu taxaw civilisé élégante élégance la ñuy assemblée nationale mais jusqu'à présent ils ne l'ont pas fait. moo taxit mbir mi jaxasoo na lépp lu ci wax eh, yaakaar naa ne ñoom lu ñu bëgg mooy que ni jàpp un opposant néewal un opposant comme ni ko defee woon ci xalifa Sall comme ni ko defee woon ci eh, Karim Wade te yaakaar naa ni au est au vingt et unième siècle vingt et unième siècle lañ nekk Sénégal am na taxawaay bu mu war a taxaw. ba xamanteni xamante kenn du am lu ñuy xebe te franchement situation bi nu muy demee nii s'il n'y a pas une opposition de la euh, de la euh, du peuple souverain Sonko xam nga ni moom par exemple il ira directement en mandat de dépôt te loolu nekk na la nga xamante ni bu fekkee am na dina nekk gàcce bu mag ci taxawaay assemblée nationale parce que comme ni nga ko la majorité est en train de crier victoire c'est que nous xamul c'est rôle opposition la nekk wala Sonko ci pouvoir mais dañu war a c'est un député à l'Assemblée nationale dal jugé par exemple un député un député de la majorité su baba ñom naka lañuy taxawé. taxawee leen laaj simple na lu leen laaj c'est très simple diw mo def li wala diw defu ko est-ce que luñ koy topé pour ñu lever immunité parlementaire est-ce que yenn noo maanaa wala yenn mana su fekkee yenn noo maanaa ngeen jébal ko procureur su fekkee yenn mana assemblée nationale même bu fekkee dans la majorité ñom sax waru ñu voter bobu bobu projet ñu ko voter parce que dëgg lañu fa a toogee lu lu lu jëmmal seen assemblée lañ fa a toogee lu jëmmal Sénégal lañ fa toogee pouvoir exécutif mu ngi def mu ngi def wàllam pouvoir judiciaire mu ngi def wàllam dossier bi nag bu ñu ko indee ba assemblée nationale ñoom tamit nañ def seen wàll nu mu gën a rafetee moo gën ñuy def ay parparloo man daal loolu laa ci amoon lu ma ciy wax maa ngi lay gërëm. jërëjëf Meissa pas de

su yenu it maanaa nañu wax waaye nag nit ki balaa ñuy signé liy teggi malaanu kiira ay nit ki war nañu mën a xam lan lañ koy toppee plainte contre x boobu lan la ëmb lan moo ci nekk nañ ko leeral nit ñi kon nag wax fu dëgg yàlla nit ki boo koy toppee war nga ne ko lii ak lii laa la toppee mu leer ci nàññ comme ça askan wi seen jiixi jaaxa mën a féete euh, côté léegi rek may ëlbatiku di la laaj yow ban jàngat euh, nga ci am ci lii nga xamante ne jot nañ ko waxtaanee ci ci kaw ci ci plateau bi. allo waaw soxna Marème maa ngi lay ziar eh, di wax sa question am na solo xam nga euh, dafa am loo xam ni moom laa jàpp xam nga plainte moom tey jii bu fekkee dafa doon plainte boo xam ni contre x lañ def. x bi nag kan la loolu mooy problème bi lan moo tax ñu def plainte contre x man damay jàpp ni du su problème viol bi man damay dindi problème viol bi teg ko nële ndax li tax may dindi problème viol bi teg ko nële buñ ne x nag parce que am na lu xew ci diggante bi lan moo xew mooy am na ay kàddu yu jógoon yàq am na ci salfaañe nañ alalu réew mi salfaañe alalu alalu citoyen réew mi kon donc am na loo xamante ni tey procureur mën naa def plainte contre x mais buñ defee plainte contre x bu mu demee bu demee ba am lu ko leer mën naa wax ni x boobu diw la maanaam si enquête si sama jàngat sama xam-xam bu gàtt waaw problème mu euh, dindi mbalaayam kirlaayam bu usmaan Sonko usmaan Sonko warul woon a xaar sax ñu naan dañuy dindi mbalaane kirilaayam waru ko woon a xaar moom gis nga yàlla dëgg rek la bëgg te dëgg bu amee bu bu eh, nit ki man tey bu fekkee ni dafa am loo ma jiñ mu leer ma ni du man mu leer ma ni du man duma xaar ñu may dindil dara pour ma dem wuy ji loolu lu am importance la parce que Ousmane Seng Ousmane Sonko dafa nekk nit koo xamante ni du du du du nit simple si réew mi dafa bëgg daf ñoo bëgg a jiite daf daf ñoo bëgg a jiite kon donc bu fekkee ne daf ñoo bëgg a jiite ñu am lu luñ koy tuumaal am na foo xam ne waru faa sukkandiku di am fu muy làqu buñ ko woowee dafa waroon a léegi maa ngi dégluwaat ba euh, beneen question. waaw mais Seydina booy xool tuuma bi dañ ko jëloon yóbbu ko ci côté bu gën a kawe muy crime li nga xamante ne. léegi kenn dootu ko baale kenn viol ñu jël ko criminaliser ko nga xamante ne day yàq carrière doomu aadama tuuma boobu tuuma boobu jël mu jóge kaw ñëpp mën na naam indi leneen luñ ci ba laxas malgré que naan sax amul justification valable waaye nag ka lañ ca doon indi di ca tuuma su si amul waa léegi est-ce que nag bu ñu jaaree yoon rek war nañu mën a wut feneen fuñ ko fu ñu greffé parce que liñ doon nit ñi di wax nag ne am na ci malaanu politique kon dafa mel ni yëf yi ñu ngi leen di xaw a yey kon na naam sax insurrection boobu appel à l'insurrection boobu amul yoon waaye it tamit ci ban contexte ak lan moo ko indi ba ñu egg ci euh, euh, ci ci ci contexte boobu naam sax kenn du ko daganal waa comme comme li ñuy wax rek soxnam rem xam nga aduna comme li ñuy wax gis nga mbir mi politique man na cee am mais bala ñoo wax waxi politique nañ wax waxi li nga xam ni moom lañ ko tuumaal ba pare moom dafa war a wuy ji toog wax nit ñi dégg gis nga problème viol du lu ndaw ñaata nit lañ ci viol violé ñeme ñu ñoo wax gis nga problème bi aji aji saar la xawma ma dafa wéet ñëpp jël toor rek bëgg teg aji saar bàyyi Ousmane Sonko loolu moo dul yoon bu raxee politique tamit dañoo war a dem si kanamu yoon bañ xam képp koo xam ne laala na ci ñu teg la ci yoon mais Ousmane Sonko viol lañ ko jiiñ te viol nag il faut ñu leeral ko ba ñu xam ni moom la walla du moom def na am deful loolu mooy dëgg mais Sénégal gépp dañoo jóg ànd ak Ousmane Sonko bàyyi xale bi mu wéet te képp ku do am doom bu jigéen yaa ngi dégg war ngaa xalaat ni jigéen ñiñ fi violé bari na te ñeme ñu ñoo wax yaa ngi dégg lii ñuy def nii day yokk ñi nga xamante ni dañ leen a violé dootuñu nangoo wax ndax lii Ousmane Sonko nag du ab yonent nit kessa la man na djum man na djum comme nit ñi am wala amul yalla mo xam mais dafa war setal bopam genn wax war la laqatu fen man lor moy sama loolu moy sama problème te melni nak Senegal amul ay jigen di kep kuy jigen da nga wara a taxaw ci ginnaw aji sar ndax gep gépp ñoo rek andak ak Ousmane Sonko ba boo xoolee médias yi sax dañoo ànd ak Ousmane sonk loolu nag moo dul yoon nit ñi dañ see war a jóg Ousmane sonk doomu aadama rek la waaw nit la dafa juum dafa juum nit ñi nañ wax dafa juum même bu defee bu deful bu defee dafa juum bu defulit dafa juum nañ wax ci loolu loolu moo ëpp importance xanaa rek ñuy jël euh, maître sar, mi nekk ci euh, ligne bi ndaxte lépp loo gis rek loo koy développé yi tamit étayé ko yi tamit ci wàllu yoon dafa am solo parce que dañuy wax ne nul n'est censé ignorer la loi et personne n'est au-dessus de la loi kon nag may ëlbatiku rek ci euh, maître Babacar Sarr ne ñu ngi doon wax ne ah ñoom yoon dañoo war a jaar ci procédure normale bi mooy jaar assemblée fexe ba ñuy yëkkati malaanu kiiraayam pour mu mën a ñëw ci interrogatoire bi mais ñu gis ne tey commission ad hoc boobu euh, maître sax dañoo demande réquisitoire introductif bi ñu dugal dañ ko adressé contre X léegi may est-ce que ci fond ak forme boobu ñu dénk ko commission boobu est-ce que am na devoir wala pouvoir lever immunité immunité parlementaire Ousmane Sonko. waaw auzu billahi mina rajim bisimilahi rahmaani rahim euh, maa ngi nuyu ñëpp euh, dama dafa am dama damay wax plainte mais réquisitoire la waaw xam nga actuellement dossier bi dañ ko jébbal à un d'instruction juge d'instruction pour mu pour mu def liggéeyam def enquête pour mën a xam euh, contre x boobu ñuy wax kan la waaw maanaam réquisitoire introductif contre x lañ def waaw léegi nag man dama gis ni nañu bàyyi juge d'instruction defoon liggéeyam ba ñu xam x boobu mooy kan bu boobaa nag dinañ mën a saisir assemblée nationale pour mu lever immunité parlementaire ou Ousmane Ousmane Sonko loolu la dama ne plainte mais du plainte parce que dépassé nañ phase de plainte ñoo ngi ci réquisitoire parce que actuellement xam nga dafa affaire yi dafa am procédure procureur de la république buñ ko une plainte moom dafa war saisir un juge d'instruction. instruction juge d'instruction, instruction boobu nag moom day ubbi benn pour information pour xam vraiment euh, mbir mi nu mu mais comme que réquisitoire introductif boobu nekkul réquisitoire boo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko introduire euh, euh, ci benn nit xam nañ mais contre x lañ ko contre x boobu man ci sama xalaat bu en tant que juriste man dama ne nañu nañu d'instruction def contre x boobu mooy kan léegi nag bu ah ñu ni j'utilise le conditionnel Ousmane Sonko la moom moo x bu saisir le parlement bu ko faire parlement mën lever immunité parlementaire parce que nous la la war parce que nous euh, madame boo demee code de procédure pénale nous la le les mi non la le mbir mi kon nañu nañ ko toppee non waaw nañ ko nañ ko mais bu la phase plainte euh, dépassé nañ ko actuellement réquisitoire le dossier bi entre les mains du juge d'instruction juge d'instruction day def enquête contre x léegi mom bu démé ba déterminer x bobu moy kan bu boba ah ñu doog ki mais buñu féké dañu dañu def réquisitoire dañu nek juge d'instruction day def liggéeyam ah parégul ñu bëgg lever immunité parlementaire ou Ousmane Sonko day melni si juge d'instruction bi déjà def na liggéeyam ba né diw la mom mom mo ki kii waaw c'est c'est c'est contradictoire c'est contradictoire waaw comme que affaire yi ay texte de loi la nañu utiliser nañ ko nañ ko utiliser comme ni mu ni mu waré parce que Sénat Sénégal état de état de droit la wa en tout cas mbiru Ousmane Sonko euh Wa deug yalla dañ ci wara dem ak prudence parce que buñ ci jitélé walu politique du dem buñ ci jitélé walu émotion du dem comme que mbir mi mo ngi ci loxo yoon te dossier bi jox nañ ko un juge d'instruction juge d'instruction bi mo ngi def liggéeyam.

Euh, xool ba xam diw mii li ñu koy toppee dëgg la wala de ah diw mi de man da yor na ay indice yoo xam te ay preuve yoo xam te ni man euh, mën naa ne moom mii luñ koy toppee moom la bu boobaa nag ah ñu ñu doog a enclenché procédure fële au niveau du parlement pour mën a lever immunité parlementaire wu euh, monsieur monsieur Sonko mais comme que loolu amagul vraiment mbir mi daal buñ ci buñ ci sori parce que buñ ci soree rek mën nañu am lu ñu kii parce que

ñu def réquisitoire introductif pour pour leeral euh, contre X pour leeral euh, ki def lolu ba paré lever immunité parlementaire ci benen côté bi lolu vraiment c'est une démarche très très contradictoire man selon mon avis man en tant que juriste man man dama né démarche bu bu contradictoire waaw. waaw madame wad question bi amatina solo amatina solo trop waaw xam nga euh, un député wala bu leen neexee ngeen ne un parlementaire dafa nekk autorité ci réew mi nekkul n'importe n'importe qui place bu am solo bi mu am bi mu yor ci réew mi moo waral yoon protéger ko parce que bu ñu demee ci sunu constitution constitution bi dafa wax ni bu fekkee dañu jàpp ni un parlementaire wala un député ndawal réew mi par exemple ci wolof dafa dañu jàpp ni def na loo xam ni dafa mooy loi nous ne juger dañu lever immunité parlementaire mais y a une exception Si bu parlementaire bi wala euh, ndaw réew mi bu euh, commettre une infraction flagrante que ce soit un délit ou un crime Si dul bu infraction flagrante la mom saisir l'Assemblée nationale pour lever l'immunité parlementaire ou député parce que c'est flagrant waaw mais nag comme que mbir la boo xam te ni dañ koy jiiñ dañ koy dañ naan diw mi de jàpp nañ ñi dafa violé mais loolu amuñu ci benn preuve waaw léegi nag loolu nag moo tax euh, bu ñu demee ci sunu constitution dafa ne cas boobu bu amee dañu war a saisir nationale pour mu lever immunité parlementaire wu euh, député bi nga xamante ne jàpp nañ ni dafa commettre une infraction à la à la à la loi pénale waaw léegi nag euh, levée immunité parlementaire bobu dafa am nu démé comme nima ma leen ni ma leen rek Sénégal état de droit la amul kenn ku am sañ-sañu même état bi amul sañ-sañ jóg rek def lo xamante ni ko ci yoon déedéet lépp lu ñuy def dañ koy dañ ci dañ ci séddu yoon dañ dañ koy tek ci ci yoon kon euh, mbiru Ousmane Sonko bi mom député la léegi levée immunité parlementaire am bobu dafa am nuko ko yoon dafa am nuko ko yoon ndax euh ministère de la justice mom mo wara bind parlement bi pour mën a biko procureur de la république saisiré ba paré léegi nak lolu amna na mbir mi moo ngi ci euh, euh assemblée nationale euh, saisir nañ ko assemblée nationale dafa am une commission bu commission des lois commission des lois boobu ñoom bu ñu bu ñu bu ñu toogee commission comme ni nga commission ad hoc commission ad hoc boobu moom mooy statuer ci mbir mi moom mooy statuer ci mbir mi après ci lañ koy plénière plénière après nag ah, la di di mais procédure bi nga jël man de jàpp ma ni wàcc nañ yoon procédure bi ñu jël nii jàpp ma ni wàcc nañ yoon mais man lenn rek moo ma xaw a jaaxal mooy euh, réquisitoire bi ñu def ah contre x ba pare bëgg a euh, dindi mbalaanu kiiraayu Ousmane Sonko ci beneen côté ba man moo ma ci jaaxal rek mais à part ça procédure bi nga xamante ni ñoom jël nañ ko pour mën a euh, dindi mbala mbalaanu kiiraayu Ousmane Sonko

man dama naan c'est répété parce que bañ ko waree njëkkee di ko jox convocation bi dañ ne nañu jaar ci procédure euh, normale ñu ñëwaat aussi tamit am fu ñu war a mën a jaar aussi tamit pour mën a euh, yëkkati kiir laay ki malaanu kiir laayam boobu léegi nag ci contre plainte contre euh, kii bi requisita introductif boobu contre x boobu yi tamit mu war a nekk lu ñu leeral kon nag waroon na mën a am foo xamante ne war nañ ko fa càmbar toujours balaa ñuy teg benn acte mais aussi tamit doon nañu wax ne bataille bi euh, léegi romb na ci mbedd mi egg na ci péncum ndawum réew mi léegi ñu gis ne bataille législative taxaw na mu nekk entre majorité présidentielle et une opposition minoritaire vu parce que niñ ko constituer sax euh, ni ñu ni ñu taxawalee groupe euh, commission ab dok boobu boo ko xoolee présidentielle 8, députés opposition PDS 2, non non non inscrit euh, Ben. kon nga xamante ne daanaka buñ koy xool majorité présidentielle bi wax fa dëgg yàlla dafa flagrante te ñu gis ne opposition bi dafa ne moom du valider du signer parce que il faut que mu xam contenu euh, de demande réquisitoire introductif boobu

léegi nan la dossier bi di war a mën a egg plénière la ci droit di ci taxawee. waaw madame Wade euh, question bi amatina na solo euh, waaye man ci principe yi rek toujours ci laay ci laay yem ci principe bi rek ci laay yem euh, maanaam ñëw nga ci wàllu composition bi da nga gis da nga ne compo maanaam ni ñu ni ñu defee répartition des des des kii maanaam dafa xaw a kii parce que déjà majorité bi am nañu huit. Euh, ñee am 2 ñeneen ñi am am 1 pour man loolu répartition boobu c'est tout à fait logique parce que euh, ñi nga xamante ni majorité bu ñu nee majorité présidentielle rek mooy jàppal ni waa kër président ñoo fa ñoo fa ëpp kon c'est tout à fait normal affaire bi affaire bi affaire bi demee noonu léegi beneen point bi muy wàllu wax nga ci wàllu euh, ci wàllu est-ce que gars yi am nañ droit xool ki parce que comme ni ñu waxee procédure de levée d'immunité parlementaire bu ñu nee procédure rek dafa am nu muy nu muy nu muy doxee dafa am nu muy doxee parce que euh, commission ad hoc bii commission ad hoc commission des lois ñoom ñooy njëkk kii léegi daani installé commission ad hoc commission ad hoc bii ñoom ci seen wàllu bopp ñoom ñooy examiner requête procureur de la république kon euh, forcément dañuy xam lan moo nekk ci biir euh, lan mooy nekk ci ci ci biir requête bi waaw lan mooy nekk ci biir requête bi waaw léegi nag ah nañu xool nañu xol parce que tamit comme li gars yi di wax naan nettali sa. waaw léegi madame Wade ñoom buñ ko examiner ba pare léegi danañ ko yóbbu plénière bu ñu yóbbee plénière ah bu boobaa euh, la fay xew dana fa xew euh, mais droit parlementaire euh, man nekkul sama spécialité nekkul sama spécialité mais daal li ma li ma mën a wax parce que li ma mën a wax mooy damay yam rek ci li nga constitution bi loolu la wax bu fekkee député dafa def dafa def dañ koy euh, infraction à la loi pénale la droit euh, euh, la constitution lim ci wax la procédure bi jarul ñu ci ñu mais comme ni ma ni Ousmane Sonko nañ procédure pour dindi mbalaanu kiiraayam nañu ah nationale. Ah, def def liggéeyam te ñu génne ci maanaam mbiru politique génne ci mbiru émotion ah parce que man en tant que juriste man du ma mën a duggay ci ci bataille politique bi nga xamante ni moom kii na parce que xam nga assemblée nationale ña fa ña fa daje ñëpp xam nañ ko waaw ñii ci kaw kaw kaw nguur gi la ñii ci kaw opposition bi la waaw te opposition bi moom ah, genre mbir yi dana def le tout pour ah, gàkkal liggéey bi nga xamante gaay ñong koy def ci côté côté côté camp présidentiel waaw camp présidentiel bi aussi tamit ñoom ñom ñoom seen intérêt la ñuy xool waaw kon il faut que ñu dem ci ak prudence te te xamni mbir la bo xamante mbir mu sensible la parce que affaire affaire droit la waaw affaire droit la mbir mi fi mu toll nii nañ ci dem ak prudence ah, politique d'accord mën nañ comprendre ni politique mom mënu ci ñàkk mais nak buñ ko jital mais aussi émotion aussi tamit buñ ko buñ ko jital waaw comme que ñom enclenché nañ procédure pour ñu dindi immunité parlementaire nañu bayyi yoon def liggéeyam euh, manam parlement bi def liggéeyam bu boba nak après euh, euh, procédure bi mëna mëna mëna continuer waaw mais affaire Ousmane Sonko mom wax dëgg yàlla mbir la boo xamante ni. Euh, man commencé na ma jaaxal man commencé na ma jaaxal franchement commencé na ma jaaxal parce que démarche bi dang ci ciy gis ay ay contradiction yo xam te dal euh, vraiment do comprendre mais nak euh, comme que ñun dañoo ki en tant que spécialiste hein, du droit nañu yam fiñu wara fiñu wara yam rek mais dal limay wax dal moy lepp rek lepp rek nañ ko tek ci yoon Sénégal réew yoon la état de droit la dafa am ay textes yu ko régir waaw Sénégal euh, euh, maanaam république la waaw république la ah état de droit la waaw waaw kon lépp rek nañ ko nañ ko nañ nañ ko teg ci li nga xamante ni yoon moom la digle yoon moom la santaane buñ ko defee rek du ñu tooñ kenn waaw duñu ñu du ñu tooñ kenn waaw parce que euh, par parloo ah, ak fii laa féete kii laa àndal kee laa kii yooyu maanaam jëmalul réew mi fenn waaw loolu la waaw loolu daal laa ci mënoon euh, wax euh, Maram Wade euh, di di jéggalu nag ci kii bi parce que tay tey moom vraiment journée bi moom mooy loolu quoi dafa kii trop waaw mais nag xam naa incha allah bii ñëwee dàq bu soobee yàlla. jërëjëf maître Sarr mais nag sama toute dernière question la rek après da nga wax dëgg yàlla ma bàyyi la ndaxte nag lii duuf yëpp ci nag bi xajul ci cin bi. léegi nga ne bëri na ay contradictoire te ni mu jiixi jaaxaat sa xel yi tamit noonu la jiixi jaaxaat sa xelu ñeneen ñi ah waaye dañ ne ne gouverner c'est prévoir kon nag bii nii yi tamit nañu xool issu yëpp yi nga xamante ne war yaakaar nañ ne mën na cee génn parce que tout possible léegi euh, euh, maître euh, Sarr ma lay laaj est-ce que yaakaar nga ci mbir mii mën na am mandat de dépôt juddoo ci wa ilaa it est-ce que euh, tribunal correctionnel aussi tamit mu méngoog délit mineur mën na ci génn waaye ñaari cas de figure yépp ban pesanteur lay am ci carrière sanko Sonko bu ma nee carrière C'est dans sa globalité, dans tous ses aspects. Wow, madame Wade question bi amatina solo trop vraiment amatina solo Waye gis nga da nga né est-ce que mandat de dépôt mën na am ci mbir mi man dama naan waaw dama nan waaw bu fekkee ñom procédure bi ñu enclenché dem na ba jeex te assemblée nationale d'accord ñu pour ñu dindi mbana euh, Kirayou Ousmane Sonko immunité parlementaire am ah bu boba nak Ousmane Sonko buñ ko convoqué day dem wuyu ji te bu wuyu buñ ko dégloo procureur amna droit euh, maanaam manam euh, dur ko jël dossier bi ñu jox ko juge d'instruction et ñu dur ko dugal def def def mandat de dépôt contre contre mom waaw lolu mom booba ñu ñu bayyi ci xel waaw mandat de dépôt bi mom ah mën nañ ko ko dóor bu fekkee immunité parlementaire am jana parce que actuellement li koy protéger mooy immunité parlementaire bi moom moo koy protéger parce que boo leen seetloo njëkkoon nañ ko fee convoqué mais ay avocat wu Ousmane Sonko conseiller ne ko yow parlementaire nga du du nii lañ la war a convoqué nga dem il faut que ñu dindi li nga xamante ni moom moo lay protéger waaw nañu jaar fa ñu war a jaar Ousmane Sonko sax wax na ko nañu jaar fa ñu war a jaar léegi nag ñoom ah. ñoo ngi jaar fi ñu war a jaar nii nii léegi nag nañu bàyyi procédure bi jeex procédure bi moom bu jeexee Ousmane Sonko ñoom bu boobaa dañuy parquet bi day am possibilité convoqué ko mu ñëw te bu ñëwee buñ ko dégloo ah foofu mandat de dépôt mën na faa am mën na faa am waaw mën na faa mën na faa am beneen bi mooy euh, carrière Ousmane Sonko bu fekkee parce que actuellement euh, comme que le euh, procédure euh, enclenché une procédure euh, pour dindi immunité parlementaire Ousmane Ousmane Sonko légui procédure euh, bu démé ba ba ba aboutir ah, légui euh, procureur déglou ko gis ni liko limu déglou déglu bi mu déglu Ousmane Sonko information yu mu am ah dayu ko wala amna na jaxa ci xelam bu boba day jël dossier bi dénk ko à un juge d'instruction mais vous ba légui man man mënoon n'a d'accord parce que réquisitoire introductif bi nga le double dugal nañ ko au niveau du juge d'instruction man daf ma jaaxal moy ki boobu ma la doon wax parce que bu faites ñom dañuy yam ci lever immunité parlementaire parce que non la waron démé japp nañ ni Ousmane Sonko mo def nañu minute immunité nañu dugal procédure pour enclencher procédure pour dindi immunité parlementaire top procédure bi nak ba mu jeex bu boba hein ah, procureur day am sañ-sañu immunité parlementaire Ousmane Sonko rek day am sañ-sañu convoqué ko mu ñu déglu ko bu boba bu ñu ni kat ñom ñi japp nañ ni kat ah, li la dossier bi jox ko d'instruction ñu jël ko mandat de dépôt mu dem en attendant d'instruction def non la mais man rek réquisitoire introductif contre X juge d'instruction bi di seet ba pare aussi ñu enclencher beneen procédure ci côté bi pour lever immunité parlementaire Ousmane Sonko man man sama sama xalaat man sama xalaat man en tant que juge man mënoon na dama ne mënoon nañu yem ci benn ci benn ci benn ci ci benn procédure pour l'instant mooy immunité parlementaire Ousmane Sonko député la def na loo xamante ni waaw madame Wade xam nga ñoom euh, actuellement euh, Ousmane Sonko dafa am benn citoyen citoyenne sénégalaise bo xam dafa ne daf ko am lu mu ko def légui nak saisir na yoon bi mu saisiree yoon par le biais d'une plainte ah ab député pour nga top ko bu flagrant délit yoon dafa ne la fo nga demander ñu lever immunité parlementaire am ñoo ngi lever immunité parlementaire dañu warono bayyi procédure bi continuer bu ñu demee nag ba immunité parlementaire bi lever nañ ko ah bu boba nak ah, Ousmane Sonko ngi ko wowe déglu ko ah bu fekke lam len wax wul wala japp nañ ni ki liñ ko jiiñ ni moom la bu boba nak procureur dal di meuna jël dossier bi dénk ko juge d'instruction juge d'instruction def liggéeyam mais man lima jaxal rek moy ñaari procédure yi ñu def yi ñu enclenché man moma ci jaxal fi ñu lever immunité parlementaire fait ñu dugal un réquisitoire contre X mën naa de jaru ko parce que buñu ñu mënoon nañu bayyi procédure biñu ñu euh, enclenché ci parlement bi mu jeex bu boobaa day jox sañ-sañ procureur de la république ñu mëna wo Ousmane Sonko déglu ko bu féké lañ lamu mu wax kiwul bu boba nak ñu jël dossier bi bu ko défé euh, euh ké mëna ubbi information le le juge d'instruction bu boobaa day ubbi information pour gëna xotal xotal mbir mi affaire bi dal non la warona démé Euh, carrière Ousmane Sonko nag man damay wax ni lii euh, wax dëgg yàlla euh, baaxul ci moom parce que dina xaw a kii crédibilité am tuuti mais aussi tamit gis-gis bi nga xamante ni am na ñu bari am amoon nañ ko ci moom ah mën na ko mën na ko mën na ko gàllankoor daal ci wàllu politique waaw mën na ko mën na ko gàllankoor daal ci wàllu politique waaw ndax mbir la boo xamante lii nii moom wax dëgg yàlla ah dañ ko en tant que jullit de. Euh, bu fekkee daal liñ koy toppee nekkul loo xamante ni lu dul nekkul lu dul dëgg yal na ko ci yàlla yal na ko yàlla setal man loolu daal laa koy ñaanal yal na ko yàlla setal waaw na ko yàlla aussi sàmm parce que nit ki boo dee jullit da ngay ñaanal sa morom sa moroomu jullit kii parce que bien vrai que sax ah dëgg yàlla même ñi nga xam te ne ñoom la sekkal euh, ëttum politique bi sax Euh, nit ki euh, sa noon sax war wax dëgg yàlla war nga koy mën a yéene jàmm mais daal li ma mën a wax daal ma dam Wade mooy ah lii de moom war dëgg yàlla parce que dara xewagul sax mais am na ci ñoo xamante ni gis-gis bi ñu amoon ci moom commencé na wàññeeku am na ñoo xamante ni commencé nañu dute waaw ndax euh, mbir la boo xam affaire de mœurs la te ñun. Afrique la ñu nekk Sénégal lañu nekk dañu am yenn valeur yoo xamante ni wax dëgg yàlla dañ ko dañ dañ ci dañ ci attaché wu trop waaw parce que en général ñi ki ngay ki ngay jiiñ sax ne ah, amul ngor sax ci xaalis moo gëm ñu naan ah diw de moom Euh, wax dëgg yàlla euh, moom di ko jiiñ ci wàllu jëm ci wàllu ay kiw ak yooyu moom de mënu bugguma sax tudd kii bi mais daal euh, day na daal mais daal politiquement moom mën na ko indil ay conséquences yoo xamante ni du baax daal ci moom waaw du baax daal ci moom waaw di ñaan yàlla yàlla génne ko ci ak jàmm vraiment maa ngi lay remercier ci question yi nga xamante ni posé nga ko di di ñaanal ñëpp jàmm di wax ni Sénégal nañu ànd ak dal te xam ni mbir mi Euh, nañ ko gérer rek comme ni li yoon wax li yoon wax nañu topp li yoon wax rek te ñu bañ ci dugal benn parparloo bañ ci dugal benn xel bañ ci dugal aussi tamit benn euh, émotion politique bi mënta ñàkk parce que ki ko def euh, ki ñu jàpp ni moom moo ko def ah ab ab homme politique bu mag la ah boo xam ni présidence présidentielle yi passé moom moo jël troisième place bi kon wax dëgg yàlla du n'importe qui mais lépp rek nañ ko teg ci yoon ah, yàlla nañu yàlla defal jàmm jërëjëf. di jaajëfal euh, maître Sarr euh, par rapport ak ak euh, information de taille yi nga indi macha allah ne nañu lépp lu nit di wax rek na ko jël yi tamit firndeel ko ci wàllu yoon parce que li ñuy wax rek nul n'est censé ignorer la loi. personne n'est au-dessus de la loi kon nak euh, amna solo lol. Waye nak li wax rek euh, li duuf yépp ci euh, nak bi xaju ci cin bi Xana rek may ëlbeutiku ci sama ñaari invité yi li Sidi Fall ma laaj lan nga wara a am diko denk ci askan wi comme ça ñu taxawé ni nga Sénégal ñëpp petit bolé, gagné. ci soo ci de waxee sa dernier mot rek nga ëlbatiku tàggu auditeur ak auditrice su sunu kër affaire. jërëjëf soxna Marème ah, question bi am na solo li may dénk lu sénégalais bi rek di li ma leen mës a dénk te muy li ma gëm dama koy faral di wax saa su soxna Marème ce qui détermine la valeur d'un peuple. Ce n'est pas le mot amour de son existence terrestre. Vous voyez la capacité de sentir l'absolu et d'exprimer la volonté d'y parvenir. gis nga soxna rek ñun Sénégal rek lañu am te wax dëgg yàlla tey tey si tey fi ñu toll ñun waruñu woon toll si ay waxu Ousmane Sonko Adja Sarr parce que bëgg-bëgg askan wi coono askan wi li askan wi dund weesu na foofu soxna Marem aduna bi 200 pays ñoo fi nekk ñaari téeméeri dëkk le Sénégal fait partie des dix pays les plus pauvres ñun si fukk réew yi gën a pauvre Sénégal ci la bokk te gis nga yàlla wàccoon ak ñun soxna Marem le Sénégal à 500 km de côte plus de 200 km. carrés de terre arabée et trois fleuves soleil à soxna Marème waaye ba tey doomu senegal yaa ngi dee ci géej gi parce que lan amuñu liggéey waaye ba tey coono baa ngi fi mu mel ne ñun ñi ñuy jiite depuis l'indépendance ba tey dañuy fowee askan wi di nax askan wi di leen dugal ci yoo xam ne naka sudul noonu nañ ko war a bañ saa si fii dafa war a jeex yàlla wàccoon na ak ñun gis nga yàlla réew li mu def fii la def si réew yépp waaye réew boo dem rek ña fa nekk am nañ pas-pas ña jiite réew ma def nañ lañu war a def ba seen doomu réew yi dafa di fa jariñu waaye yeneen doomu réew di daw di dem foofu di fa jariñu te pourtant li nekk au Sénégal tey nekkul ci benn am na réew yoo xam ne bari na amuñu fa te su fa amoon ñoom ñu exploité ko dem seen yoon pourquoi pas le Sénégal parce que dafa am élite yoo xam ne ñoo ñu sonal soxna Marème les hommes politiques soxna Marème les fonctionnaires et hauts fonctionnaires ñenn ñi soxna Marème et certains des religieux soxna Marème ñooy séddoo le Sénégal depuis l'indépendance ñooy séddoo suuf si. ñooy séddoo alal yi ñooy séddoo poste yi dafa war a jeex soxna marem Sénégal yi dañ war a jóg taxaw takku xool bu baax yeewu parce que nelaw bi aussi doy na àddunaa ngi dox sa waaye Sénégal dafa taxaw gis nga l'état sénégalais ne marche pas on doit le refonder te loolu mooy encore une fois nañu même su dul ñun suñuy doom ak suñuy set ñu liggéeyal leen bàyyi leen fi bu ñu soxor daf ñu koy jaral te mën naa nekk yàlla moom saay wàccoo naak ñun soxna Marème bi ci des rekk mooy gis nga dossier bi bu Ousmane Sonko bi gis nga politique bii ñu fi lal nii su waree continuer xam nga luy xew la ma daan wax saa su ne rek addu kalpe moom li mu jaral addu kalpe saa yu ko jaralee borom kalfe kalfe du dal te bu njëkk bi looloo fi amoon mu ne leen duma dem te jaar leen fa ngeen war a dem ñu xëy di ko jël si li xew-xew bii nag amaana sax mu ëppi loxo ndax ay du yee si bopp borom te gis nga yàlla si boppam moo ne moom rëbb na ku yee fitna te ñii yor dossier bii état bi la ñu ngi yee fitna te baaxul ci ñoom baaxul ci Sonko baaxul ci ñun la peuple sénégalais. kon nañu yàlla defal jàmm defal ko bolom julit si barki sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyuwaat nag di jégaluwaat auditeur ak auditrice su suñu kër FM di leen wax ne ñu ngi jégalu su fekkee ne wax nañ fi loo xam ne du loolu rek ci ñun la suñu di la dañu bëggoon rek mu baax waaye noonu la nil ne parfait kenn matul yàlla rek a mat waaye Sall amuñu sa fay yàlla na la yàlla fay di wax nag aussi comme dab fetum liir mom fu nexé rek ndéja japp ci mbagge ya loo bëgg wax moy tay suñu ñëw bay wax suñu kër FM ah, c'est à cause du président Abdoulaye Fall mom mi jité Cap Sénégal na di ko ñaanal yalla mu saxal ko fi yéeneem mbébétam ci Sénégal yalla dogal mu mu mu antu mu def lepp lu mu war def yalla mën nako ko ko yalla def muy doon njiitlaayu suñu kër FM di doon njiitlaayu CAP Sénégal naataange waaye di doon lu jik Sénégal Afrique ak àdduna warngel këpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. Ah, jërëjëf ah, Sidi Fall sant ak ngërëm ñeel na la ñuy ñaan yàlla rek ah, yàlla wesaare jàmm ak sutural bu law si biir Sénégal kon rek may ëlbatiku aussi tamit di di quel est ton mot de la fin lan ngay dénk askan wi te itam nga profito tàggatoo auditeur ak auditrice bu sunu kër FM liy duuf si nag bi yëpp xajul ci cin bi. waa kay euh, Adja Marème maa ngi lay euh, remercier bu baax a baax ci sa invitation bi aussi di remercier waa sunu kër sunu kër euh, FM yëpp maa ngi leen di maa ngi leen di nuyu. di leen euh, remercier bu baax aussi parce que mbir mi moom buñ la woowee rek pour nga indi say xalaat da ngay wax rek ni ni ko jàppee waaye wax dafa metti lépp lu ci ñaaw ñu ngi koy jégalu suñu borom di ko jégalu aussi ña nga xam ne ñoo ñoo ñu doon déglu lépp lu ci baax aussi la nga xam ne dal na xel rek nañ ko jàppee rek mbiru suñu borom la yàlla nañu yàlla defal jàmm ñun ñëpp. Euh, may ñaan yàlla daal vraiment situation bi ni mu demee nii ak lépp lu mu mënti mu fu mu mënti mujjee rek nañ ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoo ko sekk ñu bàyyi ñu Sénégal mu nekk par exemple une république ñaan yàlla vraiment yàlla na yàlla tàppe yi ba nga xam ne jàmm rek moom mooy xew ci réew mi parce que Sénégal su baaxee ñun la baaxal su yàqu ñun la yàqul kon euh, nañ ñaan yàlla rek yàlla wàccee jàmm ci réew mi. yàlla dalal xel yi ba nga xamante ne jàmm dina mujj dina mujj dina dina mujj taxaw te aussi justice tegu ci yoon ba nga xamante ni euh, manifestation de la vérité day am parce que aussi war nañoo xam ki def war nañ xam ku deful ki def ñu ne ko ku deful ñu libéré ko man daal loolu laa amoon lu ma leen di wax maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm ju sax dàkk di ñaanal aussi. waa Sénégal naataange seen mission bi président Abdoulaye Fall lépp la nga xamante ni nisër na ko yàlla na ko yàlla matal di ko jox conseil rek aussi tamit comme avec euh, la situation la ku ne ku nekk leader bu nekk war nga cee mën a jàngat ku nekk rek war nga mën a xam fooy teg sa tànk ndaxte on est dans un terrain très glissant kon boog yàlla nañu yàlla sàmm yàlla ba nga xamante ni moom moo am euh, kaaraange yàlla nañu yàlla aar. bi jaay si yéen am sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ñëpp di jaare ñëpp excellente soirée merci beaucoup. may sa caam jërëjëf Sidi Fall kenn du yéen ni ngeen fi wax lu nit mën a dégg la amul dara lu ci ñaaw lépp a tegginu waa nag euh, àddina nii la rek ku nekk sa xalaat ak sa gis-gis keneen mën na gisee neneen waaye ku nekk sa liberté d'opinion sa liberté d'expression kon nak yeen la kenn amul seen fay yalla mi am fay yalla na leen yàlla fayal boppam te lepp luñ fi ñaan rek yalla nako yalla nongo ndax te lu jam jam ko gën te yi tamit lepp ci jam la xat kon yalla na fi yalla def jam waye nak jam lu koy lu koy lu koy lu koy eh, suuxat rek moy dox ci deug bu deug amé rek machallah kon lepp rek eh, ànd rek eh, rangé wu

am na fu mu tegu ci lu wóor nee na ñaar ñaari pàcc la kon nag nañu jël ñëpp en compte kon nag ni ñuy défendre Sonko nañ ko défendre Adji Sarr ndaxte Adji Sarr yi tamit dafa mel ne ku wit ci mbir yi waaye nag Seydina Adji Sarr dafa mel ni witul parce que si loxo yu wóor wóor la nekk Adji Sarr ñi ka ngem bu ku ne ah, sama xelu bopp rek laay wax am na am na am na fu wóor fu mu tegu kon nag ñi ñaan yàlla rek eh, yàlla leeralal lépp moom mi xam lépp moom mi nekk fépp kon nag euh, na ko leeral kon tout le monde est du côté de la justice et du côté de la vérité kon xanaa ñiy dox euh, ñiy tàggu rek auditeur ak auditrice bu sunu kër FM te di leen dox di daje prochainement te ñuy wax ne rek képp ku bëgg am lu la leer ci parti bi nga xamante dafa nekk euh, en construction ñu ngi lay ñaan nga woote ci 77 533 39 00 soo ko woowee incha plus lépp loo soxla ci information di ko euh, auditeur auditrice Sunuker FM on vous donne rendez-vous dans un prochain numéro merci beaucoup.